soxna Safiyatu Ñaŋ defal na ko Seydi Hajj Maalik ca la Maam Alaaji Rawaan ànd ak Seydul Hajj Maalik ak góor gi Maxtaar Sàll góor gi Maxtaar Sàll ñëw toog Tiwaawan ak Seydul Hajj Maalik ndax loolu lañ ko waxoon Maam Alaaji Rawaan dellu paal faas la njëkka faas la ëpp lu mu daan nekk Maam Alaaji Rawaan fa la bëggoon sax ñu denc ko loolu duñ ci ñëw nee naa la maam alaaji rawaan waxuma la ko ah góor gi alin ba ca gumba ngumba ngeewal kazalik sëriñ haadi Touré moo gën a garaaw ne waxoon naa la alaaji Cerno Saidu Nuuru radiyallahu anhu ca gannaaw ca bu njëkk ba wax naa la Seydi Hadji Malick wax naa la maam Alaaji Rawaan léegi ma wax la sëñ Haadi moo gën a garaawale sëñ Haadi boobu jàng na ba matal pour moom kenn rawatu ko ci réew mi mu ñëw seet si Seydul Hadji Malick lii may wax boo demee ci téere boo xam ne Cheikh Tidiane gay di jarbaatu sëriñ Abbas Sàll ca luga bind na ko ci téereem leer na Cheikh Tidiane Gaye yal na ko yàlla yërëm borom xam-xam la woon défendeuru tarixa bi la woon wala défenseuru tarixa bi la woon bind na ko ci téeréem bi maam alaaji ma euh, maam sëñ Haaji Touré ñëwee seet si Cheikhul Haaji Malick pour moom kenn rawu ko ci réew mi Maodo ñépp dañ doon ñëw pour xool nu mu mel ndax dañ koy dégg rek écho yi Maodo ak Maodo Maodo Maodo Maodo dinaa ci ñëw li indi Maodo ji ak jaxaay jaxaay sax baat boobu bàyyi nañ ko léegi jaxaay yàlla def sëñ Haadi bi mu ñëwee Seydou Hadji Malick ne ko foo toll ci alquran na Cheikh Omar Fuuti yu na ko Cheikh Mamadul Xaali defoon noonu la Maodo def maam Haadi Touré bàyyi Haadi ndax man bàyyi la ci man ndax sama bàyyi magee na ko tuuti Baye Adi Touré yàlla def ci mbaaxam Maodo ne ko foo toll ci alxuraan mu ne ko man ak alxuraan baqara be naa si mokkal naa ko riwaayaat yëpp lay tari achara riwaayaat yëpp dama koy jàng xam nga ñu bari sax dañ foog saba xiraat sëñ Haadi daan na jàng fukki xiraat yi ak ñeenti yëpp daf ko daan jàng quatorze qiraat yépp daf ko daan jàng sëñ Hadi moo tax fas ture doon na alquran te nga xool na kuy bàyyi sëriñ Hadi ture koo koy ponkal moo jàngal sëñ Hadi maam siisu Touré ñu ngi ko tuddee yoon ci yàlla siis bu maam aadama maam siisu ture boobu min kibaaril awliyaay Cheikhul Hadj Abdou Aziz nee na jamonoom maam siisu Touré néegam boo ñëwee suuf la comme sañ Moustapha Ndong amul lal amul dara boo ñëwee dangay toog boo yegsee toog mu ne la gaawal wax farata fukki minit ak juróom la su ko weesoo fola soo bëggee ëppal 15 minutes yi ay fel ñooy commencé di dugg ci sa yére yi wallahi sëñ Abdou ne fel yee dugg ci sa yére boo commencé di fëggatu mu ne un mm, un mm, fëggatu du ko dindi jógal dem ñu bala sa fukki minute ak juróom a jeex booy génn kër gi rek fel yi bàyyi na maam siisu moo jur sëriñ haadi moo jur sëriñ haadi min kibaaril awliyaa yi yëf yi dañ koy donn de seydul xaaji malik ne sëñ haadi sëñ haadi ne ko man daal li gàttal si fukki fukki xiraat yépp dama koy jàng mokkal naa ko ni ma mokkalee faatix fu noonu yépp yàlla suturaal na ma jàng naa ko mu ne ko taril ma faatix Seydul Xaaji Malick ne sëñ Haadi jàngal ma faatiha ma dégg sëñ Haadi jàng bene wala booliin mu ne ko du noonu waxaatal mu waxaat mu ne ko du noonu ba muy quatre-vingt-dix-neuf fois Maodo ne ko déglul ma jàng mu jàng sëñ hadi topp ci bene wala daaliin mu ne wala daaliin Maodo ne ko wa hakada naqra'ul fatiha keroog la ko sol yëf yi jël sëñ Abdu jox ko ne ko li ma def ci yow def ko ci moom mu ne ñu toogaat ab diir sëñ hadi ne ko elmu nujum de am na ko koy jàngale téere baa ngi nii dama bëggoon dem ci moom mu jàngal ma ko Seydi Hadji Malick ne ko tey ngaa toog déglu ma mu wax ko ko ñetti yoon Maodo ne ko indi téere mu jox ko Maodo ubbi ubbiwaat benn ñaar ñett dóor ko ko ci dënd ne ko demal lu ñuy xam ci elmu nujum di ko xam te doo ko jàng kooku du nit demal Fass Touré jumaa ja sëñ haa di tabax mu ngi ko tabax ci ilmu ju amul ci àddina bi jumaa ju amul pied xoolal as ñu as yi ñaata pied fi nekk wax leen ma dëgg rek ñeenta ngi nii taxaw di xulli ak poto yi ko traversé demal ca jumaa sëñ haa di ba amul pied bi mu ko tabaxee ba mu yegg expert yëpp ñëw nañ ne du fi yàgg day daanu ba tey mu nga fa biñ ko laajee sëñ Adilou ba mu ne ah ki raw ñëpp mu ko jàngal El Hadj Malick wa kullu shay'in indahu bi miqdaar alimul ghaybi wa shahadati kabirul mutaal mu ne foofu laa ko sukkandi kullu shay'in indahu bi miqdaar alimul ghaybi wa shahada kabirul mutaal mu ne foofu laa ko sukkandi suuf yi sax sëñ yi moo daan wax temps ci suuf temps ci béton temps ci ndox temps ci fer te bu mu ko ëpp moo koy contrôler boppam yépp sëñ Haadi ko contrôler ba mu ne cocc ñu tabax ko sëñ Abdou nee na am na tubaab yu fa mës a ñëw di ko xool di xool ci jumaa ji pour xool ndax li ñuy wax dëgg la wala du dëgg mu ne toog nag di waxtaan ak sëñ Haadi am ku leen di làppatoo mu ne ñooñu xam-xam bi sëñ Haadi di wax ci elmu nujum yéem leen ñu ne ko góor gi foo ko jàngee mu ne leen maa ngi ko jàngee ci góor gi ñuy wax Malick ci Tiwaawam ñu laaj ko diggante asamaan ak suuf ñaata kilomètre la sëñ Haadi ne leen nangam fàtte naa nag lim ba nangami milliards yi kilomètre mu ne leen fii ak jant bi laa leen wax waxuma asamaan asamaan xamu leen yéen kilomètres yi te jant bi yeggut asamaan jant bi ngay gis yeggul asamaan bi weer wi yeggut asamaan ci planètes yi rek la bokk asamaan bët du ko tege li ngay gis yëpp ay niir ay niir la de dugal avion di de niir ci kaw niir niir ci kaw niir jàng nga ko ci alxuraan sëñ bi ah fa baadum fawqa baadin déedéet tabaqaat ah. la tarkabun na tabaqan ah, na tabaqan boo yéegee ci avion da ngay gis avion bi bëtt niir yi féete niir yi kaw te yeneen niir a nga ko féete kaw kon ay na asamaan ok moo tax bi ñu laajee Cheikh Al Hadj Omar Fouti yi fu asamaan ne mu ne bët du fa tege oh. mu ne waaye jëmmi Omar al yi nag miin na ko <laughs> te mooy dëgg asamaan bët du ci tege di avion ñaata altitude lay yéeg ñaata milliers de altitude lay yéeg asamaan bu bu bu paasee fii rek niir yi lay bët bu bëttee niir yi bu yéegee ba ci kaw yaa ngi ci fenêtre bi dangay gis nuages yi ñu mel ni yàlla ci ngay xam ne yàlla yéeme day mel ni ay montagne kal jibaal yi li alxuraan wax te daanuwul ci suuf te avion bi bëtt na ko yéeg mel da day jékki-jékki mel ni ay saxaar jékki-jékki mel ni ay montagne jékki-jékki doo gis dara xam ne yàlla rek a yéwén yàlla rekk a xarañ noonu nag boo jëloon fusée yi di dem ay nuages ngay jot rek ba ci planète Mars ak yooyu de boo demee fekk fa espèces yi suuf ak yooyu te taxul nga yeggagum fa fa weer wa fa asamaan fa jant bi nekk diggante weer wi ak jant bi ay milliards kilomètres la te asab jant bi yeggul asamaan jant bi fiil bi koy alimenté moo nekk asamaan waaye yeggul asamaan courant bi koy alimenté nag asamaan lay jóge wa fi samaai rizqukum wa ma tuaduna wa rizqukum wa ma wa taral watqa min xilaali wa taral watqa yaxruju min xilaali wa ay tame la fii ak asamaan ay tame fa ne pour ndox mi di muy segg ndox mi waaye du asamaan yaxruju min xilaalihi kañ sëñ Hadi wax leen diggante jant bi ak fi toog ñaata milliards de kilomètres la tubaab xam nga dañ dañ kumpa julli jot tisbaar jot sëñ Hadi dugg ci jàkk ji di julli sëñ Abdou nee na tubaab yi jël nañ bu rëy bu rëy def ko ci tànku chaise bi sëñ jihaad yi toogoon fa tey bi mu toogoon ñu jël buré yi def ci tànk bi jël beneen buré yi def ci bii ba quatre tànk yépp ñu def ci buré yi góor gi ñëwaat toog ñu ne ko pardon dañ la doon la waxal waa ji ne ko ñu ne làppatoo bi ne ko dañ juum xamatuñ ñaata la ñu waxoon diggante fii ak jant bi ñaata milliards de kilomètres la sëñ jihaad yi ne leen ne ko ba ma ko koy wax nag nangam la woon waaye léegi fii ma toog yëg naa ne maa ngi maa ngi jege kaw épicerie bu rëy <laughs> waaw siis bi ma toog gën naa yëkkatiku ko lu lu toll ni bu rëy kon kilomètre yi ma leen waxoon wàññeeku na épicerie bu rëy ah? bu dee xaalis la woon comme mu ngi mel ni nga ne pièce su 500 francs pièce su 500 francs ni mu toll noonu la bu rëy toll woon mu ne leen yéeg ne épicerie bu rëy ñu xam ne lii du xam-xamu kese kese parce que lu ko wax ne bu rëy lañu roof ci suuf ñoom ñëpp tontu na leen sëñ Haadi moomu nag liyee ànd ak Seydul Xaaji Maodo woon ko yoon defal ko li mu bëggoon jël doomam bu ñuy wax Cheikhul Hadj Abdoul Aziz jox ko ne ko li ma def ci yow def ko ci moom kii maandu na ma jeexal ci sëñaadi moo tax keroog bi sëñ Abdu mokkalee alxuraan mu di ko indi muy tari alxuraan moom sëñ Hadi sëñ nee na Seydi Hadji mu ngi ci biir néeg bi mook sëñ Hadi man Abdu maa ngi ci biti ñu ubbi fenêtre bi may jaabante di tari ñuy dégg xam nga boobu mag ñi noonu la ñuy taree alxuraan di jaabante di tari ñuy dégg mu commencé faatix baqara di dem di dem di dem ba egg si taaha bi mu nee taaha la Seydi Hadji Malick xaaju daanu sëñ Hadji ne ko abdu mu ne ko labbayka mu ne ko taxawal bàyyil tari mi keroog la sëñ abdu mottaliwul tarima ma la yam loolu am na doomam bu ko doon ni ci moom sëñ Abdou sëñ Mbay Abdou mi dem leen ngeen laaj ko bi mokkalee alxuraan bay ñëw di tari dafay sëñ Abdou daf bi mu fa yeggee sëñ Abdou day jooy bañ ne ko sëñ Babacar arrêté la sëñ Mbay Abdou mi yeggaliwul tareem ci kanamu baayam bi Seydi Hadji Malick jógee ne sëñ Haadi ndax gis nga li ma gis mu ne ko wallaay si lan la mu ne ko abdu dey mayam feeñ na bëgg yonentam feeñ na ba bi mu ne taaha la yonent bi dugg si ci néeg bi inna xubba nabi bu leen woy xaalata laxmi wa izaami wa damma duuna riyaayi inna xubba nabi inna xubba nabi xaalata laxmi wa izaami wa damm wa isaami duuna riyaay dafa yàgg ci moom dafa yàgg bëgg yonent bi sëñ am haja shawqi li xubbil xayril baraaya léegi ngeen gàmm di ah xoolal ca booba la sëñ bi ànd ak yenent bi ma mosal la beneen ci siñaal yi te ku ko ko defal Maodo bi muy tarbiyee sëñ Abdou sëñ Abdou nee na mu ngi ci lamaxaat dañ déparé ci benn dëkk turu dëkk bi fàtte naa ko ñu julli fa tàkkusaan continuer ba julli fa tisbaar continuer ba ci benn dëkk tàkkusaan jot ñu jàdd julli tàkk pour julli tàkkusaan mu ne sëñ Aadi xool montaram gisu ko xam nga kon diggante tisbaar ak tàkkusaan ndox bi gudd na mu ne Abdou mu ne ko la béyka Touré mu ne ko laggal fañ doon jàppee tisbaar laa fàtte sama montar ba laggal seetali ma ko lagg la ko wax de waxu ko doxal déglu leen mooy dawal laggal mooy dawal rek sëñ Abdou fiti daw taxawut ba yegg si ci montre bi mu ne la tax mu daanu dafa yegg si fekk yonent bi taxaw tiin montre bi rek sëñ Abdou daanu xam ñu tëpp tëppal mu ñu jël montre mu jël montre bi fit di fiddiwaat ñëw bëgg a wax sëñ Haadi ne ko noppil gis naa ko ni nga ko gisee huwa rasulullahi bëggoon nga gis ko moo tax ma yónni la montre bi ah ca la ko yaa sëñ Abdou yaa ma may montar ah, loolu du montaru kese kese Ah, ah ah Serigne Abdou yaa ma may montar ak yeneen yëf yu yu rey yooyu awma ko feneen mooy yonent bi ak yeneen ya ko yonent bi wax ne ko waxal ma ko haadi Eh, da nga foog ni si ñaari dafa sawar rek di wéy noonu si ñab du Abdou yaa ma may montar montar lan la montar du dara ji waaye ak yeneen yu rëy aw ma payam huwa rasulullah ah, yaa ngi dégg mooy ba léegi huwa rasulullah ah! nga foog ne mag ñi dañuy woy nii rek kese kese kese mais mag ñi kay amuñ temps amuñ temps di woy nii nga foog ne sëñ Hady ni mu ñàkkee caaxaan sëñ Hady ni mu dëddoo àddina te jekku ko nag bu toogee naan Abdou yaa ma may montar nga foog ne montar kese lay woy montar bi rax na lii moo rax ci montar bi rasulullah bëgg ko yonent bi bëgg sëñ Abdou moo tax mu taxaw di xaaral sëñ Abdou ci montar bi bi ñu sëñ Abdou ñëwee gis yonent bi daanu xam yëkkati montre bi yóbbul sëñ Adé sëñ Adé moom montre bi lu tax mu naan ko Abdou yaa ma may montre mooy yaa ma may mu ñëw bëgg a nettali sëñ Adé ne ko noppil si gis naa ko moo taxoon ma yónni la booba sëñ Abdou sëñ Adé nga ca dëkk ba di topp sëñ abdu ak longëram di ko gis di ko gis di ko gis ba sëñ Abdou ba sëñ Abdou yegg si ci montre bi mu gisa ndoor ko rasulullah xam nga noo koy déggee bi yonent bi di rañaan bi Jibril lemee ba ne ko fii mënuma ko weesu su ma ko weesoo dinaa lakk ci leer yi ñi kawar di lakkee ci safara fa awxa ilaa abdihi te jibril la ko doon indi moo ko ko doon jox fa yonent nekk te yeggu fa foofu duma ci dugg yonent bi jibril la ngi noppi di ko wax ba mu yeggee fa kaana xaaba ni aw adnaan foofu la jibril amatul réseau waaw foofu la réseau jibril perte na moo tax fa awxa ila abdihi directement maa la nga xam ne awxa wax na ko foofu connexion directe la yoonu jibril newu moo tax mu jox ko ñetti xam-xam ya julli shariatul islamiya ak mbóot yam ko jox nag ne ko bii maag yow rek koo repp ba di ko ko wax danaa dagg sa buumu xol bi buy senn ma dog sa buumu xol bi laqata'naahu bil watiin moo tax nga yëg keroog bi yonent bi di waaj a génn àddina ne Omar jox ma këyit ma wax leen lu gën li ci alquran am na wala amul du siire indi na ko Ali jox leen ma këyit ma wax leen lu ëpp li ci alquran Seydina Omar Seydina Ali jóg Seydina Omar bës ko ne ko yaram wee tàng rek toogal mu ne ko Ali yow laa wax jógal jox ma këyit ma wax la lu ëpp li ci alquran muy jógaat Seydina Omar bës ko ne ko yaram wee tàng rek bàyyi ko mu toog ñetteelu yoon bi yonent bi ne ko pert ngeen naroon naa leen wax loo xam ne seen àddina da ngeen di jaaxaan rek ba yow man xëyam ngeen dugg àjjana waaye laqad xalaqnal insaana fii kabadin laqad xalaqna al insaana fi kabadin maa la ko wax sëñaa di ñett rek lay jël ngeen baal ma damay tënk waxtaan bi Maodo moo tëddee noonu wax naa la sëñaa di xoolal sëñaa di mat na wala matul ku mel ni sëñaa di rek doy na taalibi wala déet nañ waxante dëgg ku doy ku toll ni sëñ haadi ñu ne la taalibe Seydul Haaji Malik la rek doy na ku toll ni rawaan ñu ne la taalibe Seydi Haaji la rek doy na ku toll ni góor gi ma soo gi sàll ak fi yegg ci yàlla ñu ne la moo jël boppam jox Maodo doy na ku mel ni góor gi gumba am gumba maam gumba euh, déedéet ah, déedéet ngumba euh, euh, ngéewul Alioune Ba ñu ne la kii taalibe Maodo la doy na li ma la wax léegi am na koo xam ne duma tudd turam te bu ma waxee barab bi ñu xam ko bañ ko indi ci Maodo dafa tërëf maa la ko wax tat ankañ baaxul damay bañ rek man xam nga ñépp mën nañoo wax mu jur jàmm ba mu des ma biñ ko indee Maodo ne ko ndax mën ngaa bàyyi sàngara mu ne waaw mu ne ko booy bàyyi sàngara ma defar la mu dem gaa yi buur dafa amoon xaalis nag patron la boole ci waaw kay yow xam nga ko biñ demee ñu tegal ko barab yépp muy mu ñuy jëkkee jëkkee sàngara si mu ne duma naan ñu ni ko i lu tax mu ne duma naan man dem naa ba fa mu dëkk dem naa ba fa mu dëkk ca Gabon ah, Maodo defar ko fee ñi ko yaqazatan jox ko li mu koy jox ñibbisi benn nga dem ma Mama Laaj Abdou Hamid Kan moom laa mujj laaj sëñ Abdou sëñ Abdou Lamine moom laa mu moom laa ko mujj laaj mbiram ak digganteem ak Seydul Xaaji Malik mu génn àddina fi ma ko ko laajee ak fi mu génnee àddina matul un mois mu wax ma ci lu bari ma ne ko bi Maodo génnee àddina dafa am mag ñu doon diir mbagg sëñ Babacar si ma bëgg a xam ndax sa maam bokk na ci wala déet man lu ne laa ko daan laaj man maa ko ko laaj ma ne ko mag ñu bari bi Maodo demee dañ commencé woon di diir sëñ Babacar si mbagg sa la nag baal ma waaye est-ce que bokkoon na ci maam Abdou Hamid Kane mu ne ma mukk mosu cee bokk ba bi muy génn àddina 1933 ci la ma door a wax ne ma 33 la génn àddina maam Abdou Hamid kan waaw kañ mu ne ma mosu cee bokk mu ne ma orma bi mu joxoon Maodo rek moo njëkk a yéeme mu ne ma gàmm bu daan ñëw fii da koy yërëm du fi tuur ndox du fi dem gannaaw kër du fi tufli mu ne Maodo mujj yërëm ko ne ko yow sa gàmm daa métti kon yemal Kaolack di fa gàmm ca xam nga maam Abdou Hamid kan kum njëkk a dajeel Chérif Yunus Chérif Yunus la njëkk a dajeel Chérif Yunus yéem ko mu ne Chérif Yunus dama bëggoon nga may ma ñaanal ma yàlla defal ma xalwa ndax ma bokk ci aqtaab yi juróom-ñaari xutb yi Chérif Yunus defal ko ñetti fani xalwa ne ko ñaar de laa xam doo yéeg mukk ci xutbaani yéegi te ñaar yi defoo ko dinga jox sa bopp waliyu bu ñuy wax alaaji Malik benn mu ne ko dinga nga tabax zawiya wala jàkka ci sa biir kër di nga julli ñeent fukki at yoo xam ne doo manqué fajar tisbar tàkkusaan timis gee ci jàkka pour yéeg ci maqam bi mu ne ko ñaar yépp mën naa nekk boobu maam Abdou Hamid Kane mu ngi yor daara yor nekk patron commerçant bu mag ca kaw la mu bu gisante gisanteeg Seydi Hadji Malick Maodo premier condition lu mu ko njëkk wax bàyyil commerce bi boobu premier condition ak Maodo sëñ Abdou may nettali de nee na mu ne ko bàyyil commerce bi mu ne ko lu tax may bàyyi commerce bi ci lay tedd yàqalu ma dara ci daara ji Maodo ne ko ni ma bëgg nga yoree ko daara ji ak jàkka ji mënul ànd ak commerce mu ne ko ah kon dey dinga ma jox depense bu may yoree kër gi nag su ma bàyyee commerce bi dootuma joxe dépense Maodo ne ko warlu naa la bés bu set feeg maa ngi dund danaa jóge Tiwaawan indil la dépense su kër gi delluwaat Tiwaawan bëccëg bu ne kulla yawmin nee na la ko feeñal gannaaw mu ne soxna soxna si jigéen ji dafa toog ba góor gi jox ko dépense bi mu ñëw ne ko kan kan jàlloo dépense bi laay xaar mu ne ko borom kër gi ñëwagul mu ne ko ah kër gi daa am beneen borom mu ne ko xam ko tey kër gi Malick Fawad Doye lay kër borom kër gi mu ne ko xanaa xamoo ne diiru ma bàyyi commerce ba léegi moo yor kër gi mooy jógee Tiwaawan ñëw jox ma dépense delluwaat góor gi ak soxna si ak ko ñett ñaari yoon góor gi ne ko ma ne demal nga toog borom kër gi ñëwagul. balaa soxna si di ñëwaat ñetteel yoon bi mu ne Seydi Aji Malik ne jameet ci kanamam ne ko kan baal ma àq de masala yaa lëjoon ca daara ja ma di ko lijjanti waaye dépense baa ngi nii tayul ardi bi Cheikh Omar joxoon amoon moom la ko joxe te dinaa la wax góor gi ko ma Seydi Aji Malik jox Chérif Maxtaar Thierno Bachir moo ko nettali boobu ndax Thierno Bachir fa la jàngee te doomu Chérif maxtar yi ak sëtu Chérif maxtar yi ñu ngi kër Thierno Bachir bu xaay ah ponkal moomu maw doo ko defar nga naan ma lan Chérif Maxtaar bu mag balaa wax de xaay maw doo ko defar sëriñam moo toog di jàngale Thierno Bachiru Muntaga daaxa Cheikh Umar moo ma nettali mu ngi dund ko wér di demal laaj ko sëriñ bi toog ba mu yàgg ne leen sama dund a ngi waaje jeex te gisuma Malick Fawad di wele ma mbir sëriñ Mokhtar laa wax de Chérif Mokhtar sëriñam Maodo defar mbiram mu ne ko ndax yëg naa ci yàlla ne ku bëgg dara ci péeyu yàlla ba te dab jëflantewoo ak Malick doo ko am yéen kan ci yéen moo ma dem mën a demal Tiwaawoon léegi ñëwaat balaa jant bi di so xaay ca Mali ak Tiwaawoon taalibe yépp ne yasab Chérif Maxtaar ne ko mën naa ko taalibe yi ne ko day fen mënu ko de mu ne leen yéen mënu leen bàyyi leen moom ne na mën na ko mu ne yaaw yaa ne jant bu so mu ne waaw balaa jant di so man dinaa ñëw Thierno Bachir mu nee na góor gi bind lettre def demande am li bëgg ci yàlla yépp tënk ko ci ay ay chiffre na Seex Sukkayri defoon sëñ baabakër si ay chiffre di xool di njéem a ñam sëriñ Babacar sëriñ Babacar jox ko sëñ Aline Guèye ne ko dokarti man passé naa yi Sukkayri di ma laaj te Sukkayri ja jommal boobu nit ñi geneen góor jógee Kaolack taalibe Sukkayri du ma tudd turam jógee Kaolack ñëw bëgg a ñaaj gaa yi téye ko mu ne sëñ Babacar si xam-xamam bu réy bi laa soxla xam nga saalum saalum dafa xumb xam-xamam bu réy bi laa soxla li ñuy wax ne jàng na xam na lu ne sëñ Babacar ne bàyyi leen ko mu yegg si góor gi yegg si ne ko Babacar si waxul ko sax sëriñ Babacar ndax ñàkk teggin Babacar si mu ne ko labbayka mu ne ko min waraa'i Ishaq daf ko ne min waraa'i noppi sëñ Babacar ne ko Ishaq dalal leen ko ci néeg bële ba ma ñëw dafa ne këram dara newu fa isxaaqa mooy fii lépp a ngi fi min waraa i isxaaq la ko wax sëñ kër ne ko Yaaqub foofu laa la jëmale woon dama doon nuancé rek isxaaq mooy saq mu defut dara Yaaqub mooy sàq mu fees ci luxa suraaniya mu ne ko min waraa i isxaq sëñ Babacar ne ko yaqub mooy fii lépp a ngi fi dara jeexu fi waaw ah, ñu ubbi ñu ubbil góor gi néeg bi mu toog sëñ Babacar dalal ko recevoir gan yi ba mu noppi ne joxal leen ma ko temps ci saako dugub saako ceeb yépp yëkkati xaalis jox ko jël turu yàlla jox ko ne ko bu fi ñëwati loo bëgg di ko am ci benn bés maam Abdou Hamid kan ci la xamanteeg Seydil Hadji Malick Maodo yoral ko dépense bi mu yor daara ci ba ba ñuy aji mag ci bato bi déedéet ànduñ maam Abdou Hamid kan Maodo ko njëkk a aji danaa ñëw ci ajug Maodo waaye damay indi ajug maam Abdou Hamid kan pour nga xam koy ajug Maodo Maodo ajut aju gone ñii ñëpp aju gone lañu aju <laughs> baal ma waxin la moo du ajut aju gone de Cerno Yaxya li ak maam Abdu Hamid Kan ñoo bokkoon bato ba xanaa leer na leer na Cerno Yaxya li ak maam Kan ñoo bokkoon bato ba leer na Cerno Yaxya ma fekkee moo ma nettali Cerno Yaxya nee na dañ toog ci bato bi am picc mu jóge ci géej gi sab tab ci kaw bato bi ma ne leen xam ngeen li picc mi wax ñu ne déedéet <laughs> dinaa ko wax mënta ñàkk waaye am na koo xam ne du ma tudd turam xëy na du leen neex moo tax mu ne ko picc mi nee na diw sàngam balaa moo am li bëgg ci yàlla dina gisanteeg Maodo ba pare dina tabax institut islamique mu taba sagaat sabaat tag tag ci bato bi Cerno Yaxya ne ma ne leen xam ngeen lu picc mi wax ñu ne ko déedéet mu ne picc mi nee na Abdul Aziz Dabaax bu Seydi Alaaji Malik kenn mënu koo tee nekk xalifa Alaaji Malik yeneen ñaari sab yi duma ko wax mu ne foofu ñu toog di waxtaan am ñuy werante ci kasful xijaab bu Seex Sukayri bi ñuy werante ci kasful xijaab ba seen dën dënn bëgg a tàng xam nga werantey taalibe rek mu ne euh, maam Abdou Abdou Hamid kan ne leen lii ngeen di werante ba seen dënn yi di tàng jaru ko mu ngi ci téere bu ñuy wax kasful xijaab dem leen ngeen xool ko ci paas sàngam di ngeen ko gis ndekete Sukayrij mi moom téere bi mu ngi toog ci modestie ñekke ñoo bokk bato bi aj su koy rijang leen di dégg bi ñuy werante mu ne ba coow li daj bañ xool am ku fa yoroon kasful hijab ñu xool ko gis ko coow li dal nee na biñ jullee ba noppi nag su koy riij dar nga ñëw ba ci maam Abdou Hamid Kan ne ko hal taarif su riij ndax xam nga su koy riij mu ne ko déedéet mbindam rek laa xame ki téere mu ne ko boo ko gisoon sax doo ko xam mu ne ko déedéet mu ne ko ana su koy riiju man mii may su koy riij maa taalif téere boobu maam Abdou Hamid kan xam darajay Sukayri yi waaye ba tudde moom xam na li xam ndax min aqtab min al aqtab mu tàllal loxoom moom maam Abdou Hamid kan waaw kañ Jóob mu tàllal loxoom waaw kañ mu ne ko yeesal ma maam ku Maalik jox tariqa wala mu yeesal la ku la yeesalati dagg du mën a yeesal mukk mu ne Seydi Hadji Malick ne jameet ci seen kanam ci bato ba ne ko yeesal ko bi izni yeesal ko ci sama ndigal day def tabarruk ci yow xam nga lu tax na tiijaan yi moo waxoon ni sama gén dana tontu juróom benni asile yi nga xam ne kenn mënu ko tontu ku dul xutbul maktum Seydina Cheikh génn àddina tontu ko te bi muy génn àddina bàyyi Sukkayri 18 ans la am takkagul soxna mu takk fi soxna bi jur fi Sukkayri Cheikhuna Tijaani feeñu Sukkayri ne ko neel waa Faas ak ulama u Faas ak li wër Faas ne leen man ëpp naa leen yaa tolloog ñoom tontul juróom-benni asila yi Sukkayri ja ko tontu bi lisaani Cheikh Sidi Ahmad Tijaani Sukkayri amoon na turu yàlla woo xam ne muy def xëlwa yi ko ñor piir da koy wax suuf si ubbeeku mu dugg ci biir suuf si tëjuwaat léeg-léeg mu def fa trois jours léeg-léeg jours wax ko mu ubbee ko mu génnaat Cheikh Sukayri taalif na juróom-ñaar fukki téere ci luñ xam soixante-dix téere taalif na ko Sukayri xam nga kooku ponkal la min xulafaay Cheikh Seydi Ahmed Tidiane Maodo rek la ragaloon lettre yi mu daan bindanteeg Maodo yëpp yi ci ëpp teg naa ci sama bët xam nga lu tax alaaji Ousmane kan moo ko doonnoo ci maam Abdou Hamid Kane ndax moom la ko daan bindanteel moom su Sukayri xaritam la woon dañu wën bañ wëlërantee ca bato ba maam Ousmane Kane moo jur Kabir kan Cheikh Ahmad Tidiane Kane la tudd ñu naan ko Kabir kan mu ngi dëkk fii Sacré-Cœur troit man ak imam Moussa Gueye ñoo daan àndee fii di dem di yendu ji kaw la lettre yëpp teg naa ci sama bët